<laughs> sama gars yi maa ngi bëggee ñëpp di bëggee ñëpp baa leen di bëggee dama naa ne naa yéen ñëpp laay bëggee tu vois di bëggee gars yi bon tey damay wax ci làmb gis naa wax ci làmb mais maa ngi na dama yéex a def pronostic quoi mais man sama sama pronostic damay wax lii valable quoi làmb ji la rëg-rëg la versus guy gi sama sama waa ji daa Amadou dam Diagne nee na guy gi mooy daan ma nga da lekk ba suur rek bu doon guy gi mu njëkk ba dama la waaye uma uma guy guy guy bu baax ba boobu guy bu baax ba guy gi rëg-rëg ma rëg-rëg mooy sama favori rëg-rëg laa jox kat laa jox quatre vingt quinze pour cent rëg-rëg laa ko jox quatre vingt quinze est-ce que mooy sax quatre vingt dix huit pour cent boo jëlee sur le plan athlétique côté bëree lépp rëg-rëg man laa la laa ko jox bu doon guy gi bi bëri tey ji ay zarko guy ba bëri nag ay zarko guy gi bi daan simpi bëri kay ama neex laa mën nañu wax nii mais guy gi bu mu yàqee yaramam parce que dama ne mbër yi ñoo bokk ñoo bokk chemin mbër yi muy euh, muy lagrose lagrose guy gi Balla Gaye ñi ñoo bokk chemin ñii laa def dans le même sac bala vois Balla Gaye combat am bële contre Modou Lo ñëpp lañ ne ñëw na ñëw na ñëw na gis nga bu mu ñëwaatee effet secondaire ya ko topp mooy bu mu ñëwaatee ci kii contre euh, contre kii contre Bombardier guy gi bu mu jëlee ay dopage am yooyu ba ñëwaat yan combat la fi bëri référence benn combat la fi bëri muy Siteu te combat boobu Siteu moo def lépp Siteu moo def lépp Siteu moo ko yan lépp après mu mu kii guy gi manoeuvré wul benn yoon donc guy gi après dopage bi guy gi après yaram yaramu Michelin bi amu fi combat référence amu fi benn combat référence benn combat la fi te Siteu moo ko guy gi boobu bu dee côté rëg-rëg nag rëg-rëg waxuma la sax mais ay ay ay kii ay ay Modou Lo ay Balla ay kii euh, Boy Niang baye boo ngeen pare su rëg-rëg daanee tey ji mënu leen koo téye si yéen la jëm par force rëg-rëg da ngeen moom champion avéré la tay ji bo ne guuy gi reug reug bu ñu ba lamb tay ji ñukoy tek ci lamb ñukoy tek ci manam guuy gi da bari wërsëg du ñoy ñooy wërsëg on parle de talent et de physique mais sumay dajé sama morom mu bari ñaan ay ki day wërsëg gu tan la yor wala mëna a daanee sens là on met en doute tes tes tes capacités tu vois mais bu fekkee da nga jël sur le plan sportif athlète sa baña far fen man balagay moy sama mbeur mais physiquement la mu nekkoon nekkatu ko axalu mu combat bi ni dafa war a liggéeyaat lu bëri parce que lamb dañu wara baye lamb ji ji ah, ñu def ko ay affaireu affaire mystique quoi ay mystique li nii affaire lamb sport la athlète bi ñu taxawee di nga xam ne athlète bii moo gën a pare athlète bii bombardier Balla Gaye bombardier moo gënoon a sur le plan euh, athlétique ak forme bombardier gënoon pare bu ñu jëlee xar foofu yeeg jën yu bëy yu jigéen ak béjjënu bëy yu góor jigéen yëpp ñu ko tegee ba pare boo tegee athlète yi da nga naan kii moo gën a pare guy gi nag bu mu demee dopage yi defaru na ñëw na Siteu defaru mais convaincre wul parce que du combat bu mu diriger Siteu moo diriger combat bépp moo ko diriger dugal ko loolu la ñuy wax moo freiné booy moo freiné mais du guy gi nga xam ne moo leen daan gis mu jàppante ak yow jël këll bi wala bëreeg Ama Baldé deux dix naan na temps bi nañ yokk mu ngi lay dégg guy gi boobu lañ naan ma di gisaat est ce que guy boobu dañ ko gisaat tey loolay problème bi mais bu ñu jël guy gi bu yàgg ba bëgg indi guy gi guy gi dafa nekkoon ci benn euh, euh, defarwaat tu vois mooy li daj ay mooy mooy dal Lac Rose moo dal Balla Gaye ñetti mbër bokk même chemin il ñu defarwaat donc man combat tey bi bu guy gi daane yàlla pour man bu guy gi daane yàlla buñ teg ko ci côté forme wér ak côté preuve parce que kii dafa nekk ci course ascendante di dem guy gi nekk fa di wàcc léegi nag ñëpp ñu ngi naan guy gi lii mu ngi bañ ni mais ba làmmañ dina wax lu mu mënul mais gémmañ di wax lu mu mënul man sama favori guy gi la man damay joxe favori de kii sama astafurlah sama favori rëg rëg la mooy sama favori rëg rëg mooy sama favori man waaw kii nag nee na guy gi mooy daan parce que guy guy gi bi yàggala na ma bu doon guy gi bi du bëreeg bazoka guy gi bi bëreeg nees ah guy gi bëreeg bazoka guy gi bëreeg zarko guy googu noonu force naturelle mën na yëkkati lu ne soulever ay montagne mais guy gi sax am na forme bu ma léegi bu mën a concurrence ak Reug Reug mi ah soreetul ngoon yàggatul yow daam nga ne koy daal yow eh nga ne koy daal <laughs> kii dafa rek dafa dafa kaaw dafa kaaw xaw ma daal dafa teg guy gi ñax na Siteu guy gi ñax na Ama guy gi ñoom non non guy gi daanoon Ama dafa ñëw guy ko guy ko boobu guy ko guy gu baax gi la guy gi daan Ama mooy guy gi baaxoon guy dafa baax non nañ ngoon bu ngoonee dañ xam ne baax bu li leen ba dafa baax dafa baaxaat Balla Gaye gis lu bi ñu dafa baax contre Modou Lô ñu ne na mu ñëw contre Bombardier gis lu mu indi rek ba bu bu gaaw wax maa ngi nii mais man daal Reug Reug mooy sama favori sama yi booy loolu